no di ñu ngi nekk ak Wilane mu ànd ak benn euh, délégation bu ñëw fii am lu ñu war a déclaré jée ko fii ci commune bu Saly Escale xam naa balaa ñoo war démarrer waxtaan dama koy bàyyi mu nuyu ko mbokku àdduna nuyu ko mbokku département ñu doog commencé Wilane ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Moussa Matar ah. di bàyyi mu nuyu ak mbokku internet yi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu bi yëpp ñu nuyu région Kaffrine di nuyu Saly Escale ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu arrondissement bi di nuyu ñëpp daal merci beaucoup Wilane da ngeen ñëwoon fii ci xibaar Bambouk am benn déclaration bu ñu war def yëkkoo ya fële ci commune bu Saly Escale est-ce que mën xam lan moo warul tànk yi tax ñu ñëwoon fii tey pour war a mën a waxtaan ak euh, département waxtaan ak waa Sénégal waaw Modou euh, waxtaan boobu déclaration bu ñu tax a ñëw mooy ñun dañ nekk ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi si ginnaaw Alioune Badara Ly di liggéey ak moom nekk commune Escale mhm. te ñun dañu nekk ci ay jeunes yoo xamante ni ay APR leen duñ PD duñu bokk gis-gis duñ fenn ay jeunes APR leen APR la ñuy liggéeyal. président Sall la ñuy liggéeyal mais dañoo toll foo xam fu ñu toll ñu ngi bundu xataal di ñu xoqatal te ñun yooyu yëpp taxuñoo jóg li ñuy tax a jóg mooy liggéeyal président Sall gis nga yemam lu fa xewoon yemam ñëw neen fa ne ministre bi dafay ñëw. ministre bi waajal nañ ko vraiment def nañ organisation ba mu rafet ba dara desut lu dul euh, wax parole ma jël parole yi kenn ku si nekk li nga xamante ni moo ko moom mooy chef de village laa njëkkoon ne ne mooy mooy njëkk a wax si parole yi bi si jógee ñu jox président Asifor bi mu wax bu fi jógee ñu jox euh, le Yaaya moom si boppam bëggoon nañ keroog mu jël si kaddu parce que vraiment sonn na si moom élage élage Guèye mais yooyu yëpp dañ ko mujj taxañ sànni ko fële jël li nga xamante ni mooy seen yëfi bopp te dara la ko lu dul politique ak seen euh, mooy monsieur le maire si boppam moom laay waxal moom moo taxañ yëpp moo groupam bi nga xamante moom la àndal mu ngi ñoom la muy sàll mm-hmm. loolu yëpp lu ñu lu ñu bëggoon mooy ñoom seen bopp borom dëkk mooy wax monsieur le maire wax euh, ministre bu wax dem yoonam te ñun li ñu taxoon a jóg mooy dénoncer li nga xamante ni moom moo am si eh, chantier bi. parce que chantier bi am na ay réclamation li ñu si bëggoon a def parce que monsieur le ministre bu ñëwee ba yes def visite de chantier normalement lépp lu si manqué war nga ko koo mën a mhm. léegi nag li nga xamante ni moom la ñu bëggoon a dénoncer moom la ñuy tere loolu moo taxoon ñu taxaw ba far force dañuy wax mais xam na ne sax. juum nañ fofu mais loolu ñom ñoko def parce que ñun dañoo waroon bayyi ñu jël suñu ak suñu yelef waaw ok ñu bu ñu bayyi ngeen jël seen àq suñu yelef hmm. ba loolu après bu jeex na mais je crois que amone après yalla def de def ci jamm ba ngeen juboo tay tim nga ne da ngeen a nekkoon ci ben programme programme mu mujj yàqu waaw tay ngeen jogon pour liguel kan Macky Sall nek ci bir mouvement IREM ñu ngi ko ci ci commune Sali hmm. est ce que ma ngi si ñëwaat lu gëna a lu tax tay ngeen mouvement bu amone fofu am ñëw ñëw am ñëw ko yàqu waaw loolu mën naa si ñëw pour leeral parce que ñun dañ nek ay jeunes yo xam fiñ tollu ni dañ nek APR di liggéeyal présidentiel suñu moyen bop la ñuy demee ak suñu euh, leader bi di Aliou Badara li kon buñ joggé dem fi mu mel ni euh, Weyburé dëkk bu ñuy wax Weyburé bu Ndoomeen mu si commune Saly Escale mhm. fa lañ dem ak suñu ben natangu bu fa nek muy Ibrahima Ba Ibrahima kërëm lañ daloon waxtaan né nak wa dekk bi vraiment kontaan nañ ci mais monsieur le maire ci bawo mo jël ben boy bu ñuy wax Salif di rakk ci Ibrahima yëkëti 20000 francs jox boy bi korompu ko

mais tey si tey dafa am euh, leader yi nekk biir Koungheul ñoom ñoo koy yàqal département de Koungheul. Ah parce que moom si boppam mu ngi liggéey département de Koungheul moom président de ku ne xam na ne mu ngi liggéey président de la mu ngi liggéey département de Koungheul. Mhm. mu ngi liggéey Sénégal gi yëpp rawatina suñ commune bi ñu dëkkee suñ commune bu bëri na loo xamante ni am na fa. monsieur mais monsieur le maire loolu ba mu fay ñëw boobu moom mu ngi peres. kon moom monsieur président de la République ñun dañ koy delloo njukal dañ koy delloo njukkal. parce que moom ba mu ñuy liggéeyal moom lu dugg suñ commune boobu maire mu ngi PDS kon moom bu fekkee ne maire mu ngi PDS muy liggéey suñ commune kon ñun li def mooy dañ ko a si loolu nag nañu di liggéeyal président de la république mais fu ñu taxaw suñ tànk ñu neñu du fii diñu bund xatal diñu bund xatal te ñun taxu ñoo mais gis le président Macky Sall moo soxla mois bi yéen kenn soxla du gis nañ ne war na nga mën a nekk benn pour falaat ko en 2019 fekkee bëgg ngeen loolu fekkee nekk ngeen ci biir affaire mais moment yi ngeen nekk ci biir Sall ak Turoog ngaa yooyu ci ay camp camp ma xëy ak yéen seen camp est-ce que loolu nekk na luy jox Macky Sall euh, ndam si commune Sarefta non non non loolu mënu ko loolu bu fekkee dañ si continuer mënu ko jox ndam parce que loolu moo tax ñu bëgg koo dénoncer parce que ñun mënuñoo ànd mënuñu fee nekk biir commune Sall di liggéeyal président de la république am ay intérêt personnel yu fa nekk yoo xamante ni dañuy seen bopp rek moo leen tax a jóg askan wi taxu leen a jóg parce que askan wi dañ leen a weddi askan wi dañ leen lu fa nekk si APR commune bi yëpp su ma yeboo may la APR leen mais dafa am njiit yi ñoo bëgg a yàq liggéey bi léegi nag bañ xamee ne njiit yi mu ngi bëgg a yàq liggéey bi ñun dañ jël suñu engagement dañ jël suñu engagement pour liggéey président Sall moo tax ñu def benn mouvement boo xamante ni ñun suñu bopp ñoo bëgg teel suñu bopp suñu liggéey bi léegi wéerootuñ si monsieur maire ñun ñoo bëgg a suñu bopp liggéey bi liggéeyal ko suñu bopp ba nga xamante ni président de la république lépp lu ñu bëgg si commune Saly Escale dina ko am. si euh, euh, deux mille dix neuf bi ñëw. léegi lu leen nar léegi. fi ñu toll li nga xamante ni moom lañ nar mooy lu ñu bëgg mooy président de la république na wax ak leader yi parce que liggéey lu luñ ko fi dara si département bi dañ koy yàqal. mooy yéen leader. mooy ku mel ne ni euh, député bi honorable député muy Yaya Sow rawatina maire Makhady Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni. ñi ngi si biir département bi yàq lañ koy def mais liggéey luñ ko si dara fu ñu gën a fu gën a fu mu gën a métti nag mooy commune Saly Escale parce foofu kenn du yëngu. mille affaires yoo xam ne newuñ ci kenn du yëngu. te loolu dafay jeex nekk njiit du tax lu la neex nga def ñun liggéey luñ ko affaire yi gox goxaan yegg seegul ñu loolu taxuñoo jóg. lu ñu tax a jóg mooy liggéeyal président de bi république ba mu am deuxième mandat parce que ñun moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy ji ngor dañ ko bëgg a fayee ngor. parce que président de la lépp lu muy digoon suñ département rawatina suñ commune mu ngi si parce que gis nga yoon bi defar na ko. Mhm. dafay que parewul ah, parce que si ñoom la si njiit gi la si njiit bi la. Ah, non non nekku si mag nekku si mag yi. Ah. ñun xam nañ bu baax fu mu jógee. yoon bi de yoon baa ngi noonu dagg ci yoon kay mënut a dem mag. waaw parce que gis nañu waa Gambie sax ñoom ñoo di ko defar temps yi nii. waaw loolu loolu kii réew boo xam ne tey ñoom ñoo defal yoon matagul un an mu dagg bu waa Gambie du ko defar loolu tim da ngeen koy juga loolu loolu lañ bëgg a mais loolu ñoom ñoo def mm. leader yi ñoo def parce que ku mel ni yaa ak monsieur le maire ñoom ñoo def président mu jógee fay di ñëw kungel, ba mu kungel ñu ne ko ñu inauguré tali boo xam ne rana bi bañ ko inauguré boo pareewul léegi moom ba mu ñëwee biir kungel avant ba Koungheul soosé dañ koo defar ba mel godron ratax ba la def ba yaakaar ne yow ngay yaakaar ne boo ne ci si tali bi rek ba salle escale la mel président defu dara

élection gox goxaan yi bu ci yeggee ñom buñ ñuy wees bu ñuy wooyee si xeex ñu xamné ne ñoo lay ëpp histoire mais instant yi pour le moment ñun wuñ soxlawuñ xeex wuñ violence li bëgg moy and ak euh, président de la république liggéeyal ko ba ñëpp xamné ne liggéeyal nañ ko mais bës buñ ñu ci élection locale yi ñoom bu ñuy wooyee si Qatar danañ xam ne ñoo lañ ëpp kata loolu loolu ci lañ nekk mais ñun fi pour le moment euh le buñ jullee buñ jullee ba ci suba samedi bu ñu jullee samedi bi incha allahu rabbi ñu ngi fas yéene am benn réunion fële si Yamang sama dëkk wala ñu bëgg a daje incha allahu rabbi fas yéene réunion fa ñun fépp fu ñuy dem dañ koy dénoncé fépp fu ñuy dem dañ fay dénoncé le 25 incha allahu rabbi fas yéene yéene am benn ndaje Yamang ndaje bi ñun ñoo koy def ànd ak soxali wala mouvement IREM ànd ak soxali ñoo koy def muy ànd ak soxali bu nekk ci biir mouvement IREM wala mu ànd ak suqali bi. Hmm. waaw dafa nekk si biir mouvement IRM rek. parce que ñu ñëpp euh, ñoo bokk combat bi. yéen ñëpp ñoo bokk combat bi ñu si ginnaaw Alioune Badara jërëjëf je crois que mbokk yéen a ko dégg ndoro loolu loon euh, Wilane Diop euh, dénoncer pour wax ko pour def déclaration bu demee noonu pour wane ne ñoom ñu ci liggéey bu xam ne da am ñu leen ni xoqatal comme ni mu ko waxee wala di leen bundaxatal ci liggéey ne nañ ko mën a jàppale ba faral ko en 2019 su soxla lim soxla lim yor ñu leen ko soxla mais moment bii nee nañ soxluñ dara lépp luñ bëgg daal mooy Macky Sall nekk ku leen ñi leen luñ bëgg nag mooy ku leen bàyyi ñu liggéey ci gox bi sensibiliser population Salès Kane pour ñooñu mën ko falaat jël premier ci département Koungheul comme ni ko Wilane di waxee Wilane je crois que loolu moo nekkoon kaddu yi boo amee loo ci yokk pour loolu moo nekkoon kaddu yi kon mbokk yi lii kese loon ak Wilane Diop ak ñu loolu la fi wax département département bi jëm ci kanam parce que xale yi toll nii ñoo xale yi mel nii ñooy nekk l'avenir de ñoo ko war a liggéey dëkk bi jëm ci kanam donc nag ànd juboo nekk benn dafa nekk lu am solo lii la woon mbokk yi ak waa Saly Escale ànd soqali yi nekk ci biir mouvement IREM bu Alioune Badara Ly ki leen jiite woon tey di Wilane Diop ñoom boo jiba ak ñëpp nekk ci gannaaw ñëwoon pour ñëw dénoncer loolu wax loolu kaddu gaa ngi noonu dégg ngeen wax ji yeneen juge nag ñu ngi xaar ci commentaire yi jërë ngeen jëf